ci seen jotaay bi nga xamante ne mooy yóbbalu suba ci bis bu set yoon ni xamal incha allahu taala am nañu yéene ànd kook yéen ci seen télévision bi di Mouride TV ngeen mën koo ànd ak ñun ci YouTube bi waaye mën ko ànd itam ñun ci Facebook mën ko ànd ak ñun ci WhatsApp bi ak mboolem jumtukaay yi nga xamante ne dañ ko ci mën a amee yëpp incha allahu taala su dee itam ñu leen di yëgal ne émission boobu mbokk yi euh, képp koo xamante ne nii commerçant nga wala nga nekk ouvrier boo xamante ne da nga yëngu ci dara ak lu mën doon rek incha allahu taala te nga bëgg loola mu nekk loo xamante ne day si bu ñëpp mën ca jot ñëpp mën ko yëg adduna bi yëpp mën koo xam xam ci li nga xamante ni moom nga yëngu su boobaa ñu ngi lay tàllal loxo di la woo incha allahu taala nga ànd ak ñun gunge ñu ci jotaay bi waaye ànd ak ñun itam gunge ñu ci liggéey bi nga xamante ni moom lañu def fii ci Mouride TV incha allahu taala kon képp koo xamante ni nii rek Euh, am nga loo xamante ne da nga ko yëgle muy kuy yëngu ci njaay commerçant wala koo xamante ne ouvrier la ak ku mën a doon ak su boobaa te bëgg loolu mu siiw ñëpp mën koo xam àdduna bi yëpp mën koo yëg mën a xam loolu ñëw ànd ci ak yow su boobaa kon mën ngaa ànd ak ñun contacté nu ci Euh, numéro yi nga xamante ni mi ngi affiché incha allahu taala soo defee dinañ ñëw ba fekk si la fa nga xamante ni fa nga nekk soo defee ci ak njëg goo xamante ne gu jàppalante lay doon incha allahu taala defee ñu mën a ànd ñun ñëpp jàppalante rek incha allahu taala kon daal ñu ngi ciy xaar mbokk yëpp di ci woo mboole mbokk yëpp euh, mbokk yeeg xarit yeeg wëllëre yeeg am di jàmm yeeg ñëpp rek incha allahu taala ñu ngi leen ci xaar mbokk yi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa